siwa in bisa kaki gua idea ku dong. <coughs> Ya Dia demo programma mau ñoom mm-hmm. nah, lañ indi nii indi leen ini si parc Hann pour ñu foow reetaan taaf des na nag conférence bi la 11 la su boobaa si dañuy gën a wane liñ leen jàngal lépp foofu lañ koy wane incha allah incha allah incha allah waaw loolu nga xam sa élève yow élève eh, eh, ah yow xale moom ku la wax yomb na tamit da lay wax rek yomb na yombul waaye lépp da koy teg si xol bu xol bu rek da nga même bu fekkee ne ay xale lañu. Mhm. tamit ñun dañuy nekk ak ñoom. Mhm. yenn saa yi dañ tooñ dañ leen di tooñ. Mhm. comme suñuy doom lañu. suñuy jarbaat lañu. dañuy nekk ak ñoom ci moment yu nekk. benn yenn saa yi day baax. ñun nag ñu changé beneen climat ba ñu xam ne. nekkuñu woon liñ doon defante ak ñoom ci métti wala yenn yenn ñu gis ñu beneen facette. ñu xam ne lenn rek moo ñu ci intéressé. mooy fexe ñu jàng seen diine. am culture tuuti waaj. pour xam leen tax a ñëw ci école bi ci école bi mais en plus changé waat ak ñoom beneen beneen air boo xam ne bokkut ak ñoom ci atmosphère bi ñu nekk. maîtresse Makhady yore petite section ñoo ñëwoon fii tey Makhady bi ñoo ñëwoon tey fii Partaan indi suñu xale yi ànd ak ay yaa Seyda ak parents d'élèves bi ñu ñëw jàpp ci liggéey bi kontaan nañu si ñoom trop parents itam ñoo ngi leen di gërëm di gërëm tamit élèves yi ndax yàquñu ko benn yoon xale moom loo loo def si moom rek yàlla dala koy fay comme boobu ñoo ngi ñaanal yaa Seyda ak ustaas yi ak parents d'élèves euh, xanaa ba ñuy soog a tàmbali laa fi sama taaw bu góor moom sëñ Fall ba léegi nag gis ma ci leen lu ma metti dëgg neex yàlla ñu leen di yor yor ba ca war amul benn problème te yor xale ni mu mettee xam naa ci dara man mi yor doom xam naa ci bu baax ne metti na yombul ñoom ñuy yendu ak moom ah amuñu lenn luñ ci daw ragaluñ ci leen ñu di leen yor toppatoo ba ca war ñu di ko def te mënoon nañ leen cee bañ a fekk mënoon nañoo ñoom ñuy indi ay cicatrices wala ñuy indi dara naan suñu maîtresse moo ñu dóor waaye defuñu ko wax dëgg yàlla yor bi rafet na trop ñun kontaan nañ trop lépp bu bu lépp weesoo euh, waa école bi waaw di leen ñaanal gudd léegi mm-hmm. mm-hmm. bu fekkee am nga loo leen si yokk si wàllum xam-xam ak wàllum organisation ak wàllum développement lan nga leen si yokk vraiment loolu moom xaw ma moom lépp nice ndax xam nga wóolute dafay dafa meet te nit bu la wóoloo rek da laa sas mun naa ne xëy na sama doom moo mujjee ñëw ci école mais ñoo ma woon lu tax ma ñëw xuleen ba fu ñu demee ñu mujjee ndey daara macha allah kontaan naa trop mhm. damay ñaan yàlla ñu yàgg di ko def mhm. ndax ñun mënuñu leen fay na koo jël jox jox ko sa doom ak yor xale nu mu méttee mu yendoog moom kooku mënoo koo fay ñun ñun ñun ñoom chaque jour dañ leen di jéggalu di leen wax ñu baal ñu àq parce que dañuy jël suñu doom yi di leen ko jox suñu doom yi nekk fa yend fa bëgg a dee ñun ñu toog suñu óolalaa kon ñun ñoo leen war a sant ñun ñoo leen war a di leen jéggalu waaw sant yàlla nag bu baax a baax lépp rek ñoom la sant nañ nag bu baax kontaan nañ si bis bi tamit maa ngi gërëm ñu ñu jàpp si liggéey bi. Mhm. gërëm naa a baax. Mhm. Mhm. waaw yàquñu benn yoon liggéey diggante. programme bi yàquñu ko benn yoon. xanaa di gën a ñaax parents yi rek déwén ak jàmm. ku am élève këram rek na ko indi. yaa a ne ñun moom ñooñu ñun nañ bu dee ñun moom suñu jàmbaar suñu jom. 24 heures sur 24 ñu ci xale yi ku ñu gis sax sonn dëpp ñu lancé programme Soote bi lekkatuñu naanatuñu narawatuñu wax dëgg sonn nañu moom gërëm nañu ñëpp bàyyi ñu kenn ak parents yi bàyyi seen doom yi ñëw fii ñu ñaanal nag daara ji moom gën a yokk yokkute bu baax yow mi itam ñu ngay remercier bu baax ak Pape Sam moo woowee wax bu la neexoon tam ñu ne doo ñëw waaye defoo ko yow moom ñu ngay gërëm baax a baax dëgg la bon man maay Tata Awa di mm-hmm. employé si école bi mm-hmm. Eh. école mooy tudd yaa Aminatou. Mhm. suñu directrice bi mooy tudd yaa Seyda Jëmu Faar. mais kontaan nañu trop trop mhm. yi moom xale xamul dara. Mhm. xale li leen defar rek yàlla day lay fayaat eh, ndax li nga xale moomin la xamul dara xale mm-hmm, moomin mm-hmm. ñaan yàlla rek mm-hmm. yàlla jàppale ñu ba lu ñu bëgg si xale yi rek yàlla defaral ñu ko si Seydina Mouhamed kontaan trop si parents d'élèves bi tam ñoo ñu am ñu am confiance ñun ba dénkuñu seeni doom kontaan trop si parents d'élèves bi tam mention spéciale suñu yaa Seyda Ka jëmu faam macha allah macha allah kontaan nañu mais bu école bi laa bëggoon xam lan hmm? biir école bi lan la biir école bi mm. biir école bi mooy dañuy ñëw pour éduquer xale yi mm-hmm. jàngale pour ñu am xam-xam si wàllum français beeg arabe bi te yëpp moom maskar macha allah yëpp moom macha allah di kontaan si maîtresse Maa yaa Seyda Aydolo yaa Seyda Ami kontaan nañu trop kii moom mooy sama doomu nday moom. maa mujjee ñëw si école mais damaa ñëw ñëpp ñu yaatal moom macha allah. kontaan naa trop waaw yow xam ku baax nga parce que gis naa ne ba nga ñëwee école bi rek xale yi ñu la toppee daal la tata awa tata awa tata awa. xale yi moom Mara. xale yi moom aw ma daara jeex. Hmm.